chef de village yi Macky ko demoon nangu vous vous rappelez pas Moussa Macky balaa moom muy dem mu jëlaat ay oto mayaat ko chef de village vous comprenez c'est-à-dire tey moo tax li ma la fi ma commencé ak yow ci njëlbeen romb na Macky Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul dafa waxoon Samba Laobé Fall dammeel mhm. ne ko nguur gi tàbb ci say loxo ci ay loxo la jóge te bu jógee ci say loxo ci yeneen i loxo lay jóge mhm. donc loolu moo tax dañ ci war a jàng que moment bi nga koy yore suba mën nga koo bañ a yore te boo ko yoree na nga ci na nga ko jëmmal na nga ci am woy wu rafet. d'accord Macky tey amoon na foo xamante ne bu fa jaaroon. Mhm. amaana du romb fenn bañ na ko wuu. peut-être fu mu romb dina dina fa dégg wiiw. Mhm. waaye ci njeexitalam ci mujjantalam am na jëf yoo xamante ni da koy topp abadan léegi nag am na droit mu ñëw ah. nag si diggante bi bu jugee ni que euh, sénégalais dinañ ko jox nopp man euh, loo mën a wax. am na ñu ànd ak moom te ñi fi nekk di cëpp cëpp nii ñëpp ñii ay nenu baxale yëpp mbakee la ëpp mbooloo rek lu leer laa lay wax. d'accord bu mag yi taxawee ñoom taxaw ñoom duñ génn de. d'accord mais dëgg la <laughs> mais mais mais nag moi je pour une confrontation démocratique. Mm-hmm. et tey dafa am lu mu ñu empêché woon daf ñu xañoon benn combat politique boo xam ne ñun ñu ngi ko doon séentu gisuñu ko woon. Mm-hmm. te le vrai combat on verra on verra man li ma lay wax dimanche li Malick Thiandoum naan dimanche 17 novembre on verra qui de Macky Sall et de Sonko est politiquement plus légitime au Sénégal kan moo gën a am doole dimanche moo ñu koy wan d'accord très bien euh, parmi c'était prévisible que Macky Sall génn démentir chiffres yi premier ministre dévoilé après 12 ans de règne tout en oubliant que Macky a une et Ousmane Sonko seul son parti ah donc euh, pour combat bi quoi Euh... une coalition égale un parti. plus un parti. oui. Aïda hmm. dugg na si Pastef. non non Aïda Mbodj elle n'est pas investie. Aïda Mbodj investir nañ ay nitam Bambey jox ah, nañ benn deux coalition la non non coalition Pastef mais parti Pastef la. récépissé Pastef daa jël car bi. kaaru boppam wut chauffeur euh, boppam euh, ku mu neex nga dugg. da nga foog ne yow 54 pour cent yi ñaata la ci Aïda Mbodj contribuer <laughs> kii Aliou nee na léegi Cheikh Tidiane Dièye euh, pesé wul daal waaw. Ah. kenn du ci lenn lépp Ousmane Sonko la. mais coalition la kam du nee na du sax parti nit la. lépp ah. ousman Sonko la amul kenn ci ku ci am base Ousmane Sonko képp la. wala nit plus. waaw léegi. Euh, Macky Sall dafa euh, démenti mu ne ah. Euh, que ni un pays. avec des signes. Euh, des indicateurs verts. waaw am sax même foofu vert bi dimbali ma. waaw ah. mag yi wuyu ma <laughs> da nga ne vert nga fi bàyyi. compteur yi nga fi bàyyi yëpp a rougeoon mooy suñ compteur woyofal yi te woyofal bi ba tey nag changé wu la ah. jomaay woyofal bi lijjanti ko Senelec man fan yi li ma ci daj dinaa ci ñëw sax. même même si si il était contre son candidat même s'il était contre son candidat. Amadou dafa ne woon il opte pour la continuité. sénégalais yi naka la ñuy mën a gis lépp vert ñuy rompre avec lu vert sénégalais yi ils pensent que les sénégalais sont dupes. du tout. donc euh, en tout cas ces indicateurs la euh, fu xaw ma fan lañ mënti verser mais ce n'est pas dans la poche des sénégalais ni leur ventre xanaa ci ñoom képp dóor alalu askan wi taxaw naan euh, ay signal yu vert nga yor. kon da nga jàpp ni li wax amul. non mais loolu lu ñuy dund la au quotidien euh, maman au quotidien sénégalais yi xam nañ. bi fi Macky di bàyyi dëkk bi nan la mel. est-ce que lépp gongo est-ce que la transparence était là est-ce que économiquement Sénégal mi ngi doon euh, respirer carrément est-ce que amoon nañ modèle économique bu ñu doon permettre jeunes yi accès à l'emploi seen Macky Sall bi muy bàyyi réew mi on était placé vingt-cinquième pays plus pauvre waaw wala déet voilà ce ne sont pas loolu loolu du ay indicateur mm. bu mu ñuy bàyyi euh, fii nii taux de chômage bi fu mu toll indicateur la wala du indicateur mm. léegi sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo gis un projet de continuité de ce que faisait Macky Sall Sénégalais yi ne ñoo bañ waa léegi yow di ñu bàyyil ñun Sénégal waxuma la ay ay ay ñeneen ñuy ñëw taxaw di ko féliciter parce que saa existait ah yan saa ay euh, euh, ñeneen ay étranger ñëw ne way mu ngi liggéey nangam nangam ñun Sénégalais yi ñun mm-hmm. par rapport ak potentialité yu ñu am sur le plan agricole potentialité yu ñu am ci qualité de ressources humaines mm-hmm. ci potentialité yu ñu am ci ay ressources naturelles mm-hmm. ak li nga xamante ne moom la fi Macky Sall bàyyi mooy enrichir ay sénégalais au détriment d'autres li ñëpp bokk moom clan wam féetee ko man waxuma ko gorom frère de Marème fay moom moo ne Ousmane Sonko moo ëpp mérite Macky man waxuma ko de euh, xanaa nag wax dëgg yàlla gorom son beau frère euh, quand ben opposant quoi parce que Ousmane Sonko à l'époque était opposant euh, voilà opposant bi moom moo euh, euh, ëpp mérite sax ki nga xamante ne mu ngi dem donc kon Macky Sall ni mu bàyyee réew mi maintenant par rapport à l'endettement graaw léegi chiffre Ousmane Sonko yi lay contesté nañ andi les vrais chiffres yi nga xamante ne moom moom la joxe président Wade mu ngi ko fi bàyyil dettu mille milliards moom au moins ci li mu reconnaître boppam ëpp na 10 mille milliards li mu reconnaître boppam alors donc yeneen yi nga xamante ne nag euh, ñoom dañ koo def de manière souterraine yooyu la ñu jël teg ci kaw table bi parce que bu dee dañ ne bor xanaa ki nga ameel bor dina taxaw donc loolu kenn mënu koo kenn mënu koo euh, taf yëngal Ousmane Sonko premier ministre li mu wax loolu ay créancier Sénégal ñoo taxaw ne mi ngi ñun ameel ngeen te pourtant feeñul fenn donc te et puis e flagrant sax c'était flagrant. au vu de son clan quoi parce que il avait une gestion clanique euh, du pouvoir son clan ni ñu doon def par rapport ak arrogance xaalis bu bari bu ñuy pasar pasare n'est-ce pas tout le monde a vu son griot dem ba fële na di sànni xaalis Farba Senghor oh pourtant pour moi maa ngi jégalu Farba Senghor Farba Ngom gis nañ ko mu sànni xaalis quoi ñeneen ñi nga xamante ne sànniwuñ ku nekk gis na train de vie bi ñu doon mëne ay construction yoo xamante ne saa ay hectares yu ñuy moom ay château yu ñuy tabax di dawal ay lu kenn xamul alors que seen salaire mayeelu mayu leen ko loolu daf am Sénégalais yëpp teg ci seen bët alors donc kon tey jii nii ñoom xaalis bu ñu doon leb sax bu doon dafa delluwaat ci askan bi sax mën nañoo jéem a xool naka lañ leen di comprendre mais dafa doon servir à financer des nervis aussi far ba Ngom moom moo taxawal boppam ne la dañoo sàcc huit cent millions ci biir këram. un député. oui qui a un salaire quoi et qui est censé ne pas faire d' activité commerciale moom warul def ay affaires. Euh, homme d' affaire la député kenn terewul nga def homme d' affaire. Ah, en fait député dañ ko koy tere si si Aliou. vas-y voir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale non non doucement dama ne député dañ koy tere mu def bépp activité publique comme privée euh, ci ci ci ci ci gouvernement wala privé warul koo def moom mu toog mu ne danoo sàcc ci mun na am liggéeyam bàyyi ko. waaw ba je veux dire ci biir liggéey boobu. ñu fal ko député. waaw déglu ma rek. waaw xam naa duñ la bindal. Hmm. ne la bàyyil de bàyyil ne bàyyil bàyyil say business yi. déedéet sa business mën nga ko dénk keneen. voilà mën na nekk loolu loolu loolu mën na nekk mais Farba Ngom bi comme que léegi day wax. moom moo ne man jël naa diw jël na dégg ngeen ko Farba Ngom bi bii nag Aliou loo ci tontu. mu laa si tontu de. Ah. damaa bëgg ñu téye ko tëj ko. waaw ah, kay xaw la bu ñu ko téyee ba pare. Ah. ñu mu leeral lépp parce que nee na aussi ah moom Farba moom yamul foofu de. Hmm. moo ko la leen lu mu wax. Hmm. nee na am na ay terrain yoo xam ne moom. Hmm. moo ko jënd ñoom Ousmane ñoo ko doon jaay waaye moom feeñu si ko jënd te ñoom Ousmane ko doon jaay loolu laa li ma bëgg na li ngeen di wax yëpp. moom nee na moom. am na ay terrain yoo xam ne jënd na ko. ñoom Ousmane Sonko ñoo ko doon jaay. waaw ah. ak seen syndicat. fi fi may ma Mimi Touré xaw ma Thierno Alassane Sall mu ne jël na jël naa naa wax jël na jël naa. kon moom moom accepté na boppam ne jël na léegi nag lépp yooyu noonu lii la donc président Macky Sall bu toogee ne day weddi euh, y a pas de souci amul problème mën na weddi ba mais lii ma la wax nii dafa ne fàng kenn mënu koo jeex seen seen seen seen wax yii nii ak euh, ay xaalis yu ñu doon dañ seeni kër ñoom ñoo ko waxal seen bopp alors donc maintenant euh, vu sur cet angle là mais Sénégal bu yegsee ci situation bii nii d'économiquement catastrophique mais loolu saa waay on lieu de s'interroger ci li nga xamante ne tey jii ni premier ministre Ousmane Sonko wax na ko comme fi ñu toll ci ci ci situation diagnostic bi loolu ñun dañ ko yëg d'abord ci suñuy poste ak sunuy biir loolu du dañ koo yëg ci ñu placé ñu vingt cinquième pays plus pauvre loolu jeunesse sénégalaise chômage bi dañ koo yëg ci nga gis ni ñuy mbëkkee génn réew mi donc loolu ça va yi. Euh, en tout cas daal compteur Woyofal yëpp. sa nécessité même pas. à ce que ñun ñun ñun ñun ñun sénégalais quoi bu ñu ko premier ministre waxul woon bu ñu ko gouvernement bi waxul woon sax ñun yëg nañ ko ci notre quotidien alors malgré nag léegi dëkk bi nga xamante ne richesse yi mu am je te maman euh, Sénégal jeunesse sénégalaise daf ci am ñu am jom te ñeme faay. on a une jeunesse vraiment euh, ressources humaines de qualité carrément ay fighting boy dëgg. ñoo xamante ne bëgg seen réew bëgg réew mi dox ñi nga xamante ne tey jii nii euh, même cette euh, révolution du 24 mars passé la plupart euh, Ousmane Sonko ak ñi ko doon topp issu de la diaspora xam nga lan moo koy waral dañuy xool yeneen réew yi ni ñu mel xool ñoom seen réew potentialité bi mu am ak fi mu toll sa xol di laaj ngay dem ci ngay gis yeneen réew seen organisation seen transparence respecté bi ñu respecté l'argent du contribuable mm-hmm. parce que nag wax dëgg yàlla ak ku ko mënti def mm-hmm. moo tax chaque jour maanaam dañ ko war a criminaliser maanaam maire bu yeew 5 heures du matin dem géej uti jën lu mu waas am lu mu dundal njabootam. béykat ba ca Fimela. marchand ambulant bi ci naaj bu tàng bi ñoo ñëpp dajale seen dërëm ñaar dërëm ñetti dërëm teg ko ci gafaka muy l'argent du contribuable nga ñëw ne ko tungaan dem sa yoon. Mm-hmm. bàyyi je euh, euh, ce peuple là ci précarité bi peuple bi nga xamante ne moo la defal li Cheikh Omar Talla wax yépp de agent de Petrosen jusqu'à président de la République en passant par activité yi nga jaar yépp station yi nga jaar yépp poste yi nga jaar yépp contribuable sénégalais bi moo la yor. moo la logé. Mhm. jox la carburant jox la oto escorté la defal la lépp amoo loo koy fayee lu dul bàyyi ko pays en ruine taxaw naan dangay ngay weddi ñu lay faale. oui Aliou noo ma toog fii di déglu loolu man dëkk bi du nekk en ruine au mois de mars alors que Bassirou Diomaye Faye vient d'être élu président de la République du Sénégal Fonds monétaire international ñoom nee nañu les clignotants étaient au vert